jërëjëf euh, mbokk yi ba tey yéen a ngi ñuy topp fii ci kër Serigne Touba Khadim Rasoul gi ne ci jumaa ji euh, ci gàmm gi nga xam ne moom la Serigne Amsatou Mbacké mu Cheikh Abdou Lahad euh, di dundal fii dend ko ak Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha ngeen ñu toog nag ak ki nga xamante ne bii Eh, moom la Serigne Sidi doyloo ci li ko sëñ Mountakha denk mu di dëkk bi di monsieur le maire Abdou Lahad Ka waaye fii nag di kër sëñ tubaa goo xam ne Cheikh Abdou Lahad sëriñam moo ko liggéey mu ñëw fekk si fi sëriñ Amsatu ci gàmmu gi ne sëñ Abdou Lahad ana ngay yëkkati. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Serigne Touba ñaanal xalif général des mourides bu yàgg fi te weer di ñaanal sama sëriñ sëriñ Sidil Abdoul Ahad Mbacke mu yàgg fi te wér ak njabootu sëriñ Tuubaa gépp ah, sëñ Fallou ñu ngi sant yàlla bu baax baax di ñaan mm, yàlla ñu fekkewaat ko dégg déwén di sant suñu borom ta wa taala nëgën si daaw lañ fi toogoon di ko màggal ci ànd ko ak sëriñ Amsatu moom sëriñ Abdoul Ahad ak sëriñ Sidi mii nii ñu ko deferen ren borom mañu ñu kattan may ñu ñu fekkewaat ko ren yàlla ñu may ñu fekkewaat ko déwén mm-hmm. ah te déwén dàq na gën déwén dàq na gën ren ah, di wax rek histoire ah, ci guddi gi tedd guddi gu màgg gi bi nga xam ne moo waral jataay bi parce que lu mbir rëy rëy la la ca boole ak la tax nga nekkee lool da ko dafa mat a bàyyi xel mm-hmm. muy jataay bii ñu nekk tey ci résidence sëriñ Touba bii ci jumaa ji nekk fi ak sëriñ am sëtu mu sëriñ Abdoulahat mu nekk fi ak wëllëreem mbokkam di xaritam bu ñëpp xam sëriñ Siidi moom sëriñ Abdou Khadir kon la seen wàjjur ya waxoon ne di gopp la ak ab illeer mhm. loolu firnde ji bët bu yàlla sàkk ñoom feddali nañ ko te moom la ñuy dund te ku leen xam ci senegal xam leen ci àdduna xam leen ci yoonu murit xam ne loolu la ñuy dund di ko dundal sëriñ am sa nag ñu di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam te wéral cëram ndax eh, yoon wi moom ndigal rek moo ci am solo te ku nekk xam na sëriñ Saliou Mbacké rabiyallahu anhu yàlla na yàlla dolli leeram ni mu ni ko gàmm tolloon ndax na ko Serigne Touba dun dundalee ci njaareem noona rek la Serigne bi fonke woon gàmm ba kum am ak fum am ñu ngi ko fay dundal defe naa ne boo demee xel kom tey te nañ ko doon dundalee sëriñ am sa mii nekkoon fa di mu di mu fonkloo ko ko di ko ko taxawaloo ci ay barab yu bari ñu ngi koy dundale nii boo demee ci sëriñ Cheikh Saliou yal na yàlla guddal na fanati wéru mu gis nga ni mu ko fonke nga dem kër sëriñ Moustapha ka saalika naka noona te naka noona ni mu joxe woon sëriñ am sa tu ndigal ne ko dee ko dundal guddi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam fii ci kër Serigne Touba gi ci jumaa ji diir bu yàgg mu nekk fi ak moom di ko ko dundal ba bi mu demee ba nëg ni Serigne am sa topp ndigaloo la ci di ko jëfe ci amaat ci leneen ndigal muy jawrinam ji nga xam ne mooy jawrinam di mbokkam di xaritam di ci di Serigne Sidi ànd ci ak moom dolli ko ndigal li mu ànd mu mu boole ñaari ndigal yëpp toog fii di ko dundal ak mboolem njaboot geeg bokk yi ak couleur yi ak taalibe yi ah, ba tey jii muy gàmm goo xam ne gàmm gu xaw a extra la ndax sëriñ am mi ngi fi toog ànd ak Serigne Sidi moom Serigne Abdou waaye xalif général de Mouride Serigne ñëw nekk fi ak ñoom toog di leen déglu ñuy dundal guddi gi ah defe naa ne loolu lu lu am solo la. defe naa ne ga gi mawlidu nabi bii moom yaakaar naa ne mawlid yëpp yëpp yëpp yàlla ne suñ borom nangu na ko waaye liggéey bu ko suñ borom nangoo ndigal loo xam ne nii yaa nga cee te te bis dana ñëw li mooy seere ne suñ borom nangu la te kon defe naa ne suñu suñ borom nangul na ko ndigal li nga xam ne moom la ko wàjjuram di sëriñam joxoon mu di ko dundal ba tey jii kon nag ñuy ñu di ko ñaan rek ci guddi gi mu ñaanal mbooleem réew mi réew mi am jàmm waaye mu ñaanal taalibe yi te ñaanal kilifa yi suñ borom may leen kattan ak ak wér te moom yàlla guddal fanam wérali cëram ba yéene ji mu am ci fu yóbbu ndigal li fu mu ko bëgg yóbbu suñ borom may ko mu yóbbu ko fa ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa